li xew ci ji jamono bon mat na fukki yëfëg yanant yal nanu mooy diglul ma nettali ko rëyëg kañaan ak dogug bokk ak di xas ku la ak di yab ku la man jëw nit beru ko ak lépp te doo ak fecci wëllëre ak wayaani seex ak ku am ës nga dem gane ko ak bëgg ëddina ak saggan ci laaxira ak fàtte yàlla mu rëy mi. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi nga xam ne yéenay topp seen bii di Ndindy Actu si émission bu am solo bii di xew-xewu jamono tey ñu ngi dalal sëñ Mouhamadou Mamoune Niang di ko am taxawaay bu rafet si Touba rawatina si réew mi yëpp nag si wetu président Macky Sall di ko jàppale yor mouvement bu ñuy wax mouvement force nekk fii si gox bi di liggéey liggéey bu am solo. Euh, moom lañ dalal tey fas yéene waxtaan ak moom waxtaan wu yaatoo si point yu bëree bëri lépp nag jëm si wàllu parti bi ak dox yéenu réew mi kon sëriñ bi ñu jox ko mu nuyoo ñu door dellusiwaat si waxtaan wi. Euh, mbokki jullit yi nga xam ne yéen a jàkkaarloo ñun di ñu seetaan ci site internet bu am solo bi di Ndindy Actu ñoo ngi leen di nuyu. di jiital suñu nuyoo nag ci Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal suñu borom sàmm ko te yàggal ko fi di nuyu mboolem jullit yëpp rawatina mboolem yoonu murid yëpp di nuyu yéen ñi xam ne yéen lañ jàkkaarloo suñu Jamil Mbàkke di nuyu mboolem waa Ndindy Actu di sant yàlla bu baax ci dalal gi ndax ñëw na ci moment boo xam ne soxla woon nañ ko lool ndax dafa bokk ci suñu liggéey fuñ toll bëgg di wax askan wi rawat na actualité ak fi réew mi toll di nag nag nekk euh, site boo xam ne dañ ko bàyyi xel bu baax a baax boo am visibilité te it euh, di def liggéey bu am solo macha allah ci gox bi kon bu leen ñu dalalee sant yàlla rek lañ ciy def di leen wax na dal leen ak jàmm. kon sëñ bi première question bi mooy élection yi nga xam ne moom lañ jógee gis nañ ne gox bi président daf ko perte. Euh, perte boobu nag ban jàngat nga si am yow sëriñ bi ak lan moo lan nga yaakaar ni moo ko waral. jërëjëf sëñ Jamil maa ngi sant yàlla bu baax ci question bi di li la wax rek ne li tax ma sawar ci dalal gi mooy depuis que biñ génnee ci élection présidentielle yi passé ba léegi amagu woon occasion pour wax lu jëm ci wàllu élection ndax yàlla daf ma nattu wala ci dogalu bi yàlla laa ko mën a tudde ma ànd ak leader bu mag. di président mack Sall depuis 2011 ba léegi yàlla dogal mboolem élection bu mu fi ma sa def depuis 2012 ba léegi participé naa ci def naa ci sama alal def ci sama ñax def ci sama doole yaakaar na loolu doonatul lu ñuy wax ndax adduna bépp xam nañ sama diggante ak moom waaye ñu duggoon ci élection boo xam ne dañ cee duggee ci contexte bu xaw a difficile muy élection présidentielle yi passé mu ñëwee woon ci jamono yoo xam ne niñ ko xamee ñun ñëpp xawoon naa difficile président Macky Sall gagné woon élection yi ci benn côté bu dee beneen côté bi moom ñun ñëpp xamoon nañ ne lu facile la parce que dafay gagné parce que bilan ak détermination ak volontaire politique am mayoon na ko mu gagné élection yi premier tour loolu leeroon nañu trop fi ñu xawoon a jaaxal ñu amoon fi lu ñu sikk sàkk mooy Touba parce que élection yi passé lobby bi dafa am lobby bu am doole bu dugg ci biir Touba. Euh, def fi seen alal ju dul jeex influence ay nit am yu ñu vinculé ci biir askan wi yàq image su Macky Sall président Macky ci nit ñi ba mu nuru woon lu compliqué trop waaye détermination homme politique yi fi nekk bokk ci parti bi responsable politique yi fi nekk seen volontaire ak seen jàpp te bañ a bàyyi ak liggéey bu am doole bu ñu fi def moo waral élection yi ñu am fi résultat boo xam ne mosuñ ko fee am malgré dañoo perte Touba. Euh, li ñuy wax Touba ville centre muy Touba ci environ li nga xam ne mooy biir Touba mais boo xoolee département bi yëpp dañ ko gagné xuma la mais région Diourbel bi dañ ko gagné malgré la ñuy perte perte biir Touba yi président am na fi loo xam ne mosu ko am ci élection toujours nit ñi dañuy xool perte gi mais duñ xool li ñuy gagné cest dire nit koo xam ne euh, fii da nga koy da nga koy perte tout le temps duñu wax gagné gagné goo ko parce que président. yàlla dogal na ne musu musu la gën a musu la a gagné élection ci biir Touba waaye mi ngi fi am loo xam ne toujours dafay dafay dafay maanaam recours bi daf ko day gën a augmenté wu c'est-à-dire élection yi fi ëpp lu mu fi masoon a gagné avant élection yi trente neuf mille wala trente huit mille wàll la fa amoon élection yi passé am na fi ba soixante neuf mille voix kon man loolu du ko jàppee ak perte damay jàpp ne rek liggéey la boo am solo boo xam ne homme politique yi fi nekk responsable APR def nañ ko fi. malgré nag danañ ci jàngat parce que moom mi nga xam ne mooy kilifa gi moo koy njëkk a jàngat wax ne dina ci liggéey dina xool ñi ko sanctionné loolu du Tuubaa rek réew mi yëpp lan moo tax ñu sanctionné ko waaye yaakaar naa ne yéen boroomi bët ngeen te gis ngeen depuis que boobaak léegi yi fiy xew gis nañ ne askan wi ñu ngi koy gën a wuy si waat ñu ngi koy gën a joxaat loxo mel na ne ay image la woon yoo xam ne dañ koo dañ ko dañ koo andi woon tasaare ko fi ak lobby yooyu ma wax ak yàqkat yooyu waaye tey ñëpp xam nañ ne président Macky Sall moo peuple Touba population Touba euh, am na lu leen lee loo xam ne ci sëñ bi la départ ba egg ci askan yëpp moo tax loolu duma ko mën a tuddee perte loo damay jàpp ne rek euh, sanction la boo xam ne joxañ la boo xam ne day tax ñu gën a euh, waajal yi nga xam ne moo nekk ci suñ kanam. damaa xam ne dama bokk li ma gën a remarqué ci moom mooy nit ku mat. Euh, dañuy wax euh, grandeur moo nekk ci moom euh, du def dara loo xam ne da koy def ci boddi nit walla def ko ngir lu metti ndi wala lu naqari man jàpp ma ne dafa wax ne bu ma kenn tartu am na contexte boo xam ne bi muy ñëwaat Touba après élection yi contexte bi noonu rek la manoon demee daf fee ñëwoon en tant que ku fi ñëw di siyaare si Cheikh Mouhamadul Mountakha di saafonte si xam nga nit ñi toujours dañuy jaawale contexte politique ak boo xam ne du politique dañuy def li ñuy wax amalgam waaye ku ne xam na ne président bu sañoon fu mu mën a jug ay nitam ñoo koy teeru ñoo koy tertu ñoo koy sargal rawat na nag waa Touba nga xam ne ñi fi ñekk dañ ko bëgg trop amaa nag euh, lenn ci différent kii yi fi nekk muy responsable politique yooyu nga tudd euh, du ma di tudd tur waaye président ci boppam moom xamal na boppam ñi ko amal njariñ ak ñi ko amaloon njariñ xamal na boppam ñi koy nax ak ñi ko naxut te loolu yaakaar naa ne bu ñu demee ba ci kanam ñëpp danañ ci gën a teg seen bët kon jàpp ma ne dafa xam ne bu ma kenn tertu waaye du caage ne lu jug rek ñu politiser ko dañ doon doog jógee jóge ci élection réew mi war a amaat beneen ilan bu bees war a dalaat moo tax xëy na mu waxee noonu waaye jubluwu ci ngir ne dama leen di sewal wala dama nangu parce que population bi yëpp président moo leen yilif tey ñi ko wooteel ak ñi ko wooteelu ñi bokk ci parti ak ñi bokk ci parti kon président du wax ne bu may ñëw bu ma kenn tartu loolu yaakaaruma ko te loolu liiruma ko fenn gisuma ko fenn parce que man yoon yi ma gis mu ñëw fi yëpp population bi yëpp dañoo génn tartu ko massivement sargal ko voilà. nga jàpp ne moo mooy tax euh, waxtu wu ne président Macky Sall bi mu faloo ba léegi wala bi mu commencé dem élection ba léegi mosut a gagné Touba. loolu si ñi ko fi nekkal la wala moom diggante ak waa Touba la. loolu daanaka day ñëwaat rek ci biir waxtaan wi li ma waxoon ci biir ci ginnaaw mooy am na lu réeroon waa population Touba lu leen réeroon ci président Macky Sall loo xam ne eh, ñi fi jiitu woon ñoo ko fi def deuxièmement it am na ñu ko fi nekkaloon ñoo xam ne dañoo waxoon ne ñoo fi nekkal président Macky Sall ci biir Touba di ko fi liggéeyal te ni askan wi waree gise seen bopp. gisee wuñ ko seen bopp te euh, bu ñu waxantee rek euh, dafa am population bi ñoo xam ne xamuñ image su Macky Sall président xamuñ ko la dégg ci moom dong la ñuy dégg mais jëmm image am wala waxam wala jëfam xamuñ ko ñañu yam ci ñoom nag toujours ñooñu ñoo leen di réeral am na fi ay ay ay ay responsable yu fi nekkoon yoo xam ne du ma tudd seen tur waaye euh, ñoo nax président Macky ci biir Touba jàpp ne ko waa Touba gépp ñu ngi sa ginnaaw alors que ni ñu waroon a liggéey liggéeyuñ ko waaye ak élan bu bees bi nga xam ne am na ak liggéey bu bees bi détermination xale yi ma gis ñu encadre leen ñu commencé di liggéey liggéey bi ma gis gëm naa ne président Macky Sall du demate élection mukk ci àdduna te gañewul Tuuba incha allah rabbi si biir loolu yow sëñ Mouhamadou Mamoune gis nañ sa taxawaay boo xam ne daan ko ko am si diggante ak sëñ Mouhamadou Mbacke Bara Dolly léegi nag ràññeetuñ loolu bu baax ndax gis nañ ne sëñ Modou dafa euh, ay activité yu bari daf ko dakkal. Hmm. fi mu toll nii nag si kan kan nga àndal ak wala da ngay demee ak sa mouvement wu bopp. Hmm. laaj nga ma laaj laaj nga ma laaj bu am solo te neex ma euh, sëñ Modou Mbacke Bara maa ngi koy nuyu de sama mbokk la sama xarit la sama mag la euh, man parti bi moom ma intéressé muy APR président Macky Sall 2009. wala 2010 bi nga xamee ne yàlla dogal na ñu dàq ko ci parti bi tooñ ko nangu aw ndombay tànk yi mu amoon yëpp mu ne damay ber daara dem ànd ak yàlla wax boobu mën moo ma moo ma loolu moo moo jëloo taxoon ma jël engagement ànd ak moom depuis boobu ba léegi kenn mësuma dégg ma bokk ci beneen parti bu dul APR euh, lu ne ci àdduna ci di gën a cher muy temps ak nit ki jëmmam ak alalam yëpp dama ko def ci sacrifier def ko ci parti bi mënumaa wax ne tey parti bi li li nga xamee ne am na ñu sañ-sañu taxaw wax ne parti bi bu doxee ba excif maanaam man mi sañ naa ko parce que it nag ci xalaat ak jëf ak wax rek mooy tax mbir dox te yooyu yëpp def naa ko def naa ko ci parti bi guddeeg bëccëg suba ngoon yóbbu naa parti bi sax foo xam ne ci ay village yoo xam ne xamuñ woon sax kuy kuy président Macky Sall maa tax ñu xam ko yóbbu fi ko alors boobu ba léegi nag Euh, du ma kuy kuy kuy kuy def ay part parti dem fii di génn su ma koo def man damay xool parti bi rek logique bi nga xam ne moo tegu saa bu ñu jëmee ci élection wala lu mën a xew nan la ñuy def ba part bi am ndam wala nan la ñuy def ba image su président Macky Sall di di nan lañ koy jaayee toujours ci noonu laay dox moo tax aw ku may nekk tey wala may ku nekk suba loolu moom yaakaar naa ñi def politique nekk ci dëkk bi yëpp xam nañ ko bi ma demee sax ba bëgg a améliorer sama politique damaa créer mouvement. tuddee ko union fait la force muy force mouvement boobu ci lañ demee élection présidentielle ci lañ liggéeyee liggéey boo am solo bi ñu def ànd ko mboolem zone yi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir dëkk bi rawat na nag zone numéro onze bi nga xam ne moo nekkoon Kër Ñaan sëñ moom moomu nga ma laaj sëñ Modou Bara Dolly sama frère la sama mbokk la li ñu boole du sax politique euh, ko ku ku kenn musuma gis ma ànd ak moom di def politique kenn ku ko mas a wax rek wala nga am ci prof wane ko musta am mas naa koo defal mas naa koo def nag soutien parce que it nag loolu ni ma koy defee ci moom noonu laa gëm ne noonu laa ko war a def ku bokk ci parti bi parce que bu bokk geeg ay partisans lañ dañoo bokk genn kilifa muy président Macky Sall ñun ñoo tànn def politique ñoo tànn jàppale ko mu nekk suñu kilifa kon képp ku ci aju ci njaboot gi gëm naa ne na nga xamee ne ku nekk Dakar sax nga xam nekkut Touba dara na ko tam bokk ci parti bi sañ naa koo défendre noonu laa ko sañ a moom sëñ Modou dolli ci nag muy sëtub sëñ Touba di sama mbokk kon loolu taxoon ma ko doon def soutien doon ko jàppale ci ay xat-xat yoo xam ne nekkoon na ci ci wàllu politique am maa dakkal na ay ay activités wala wala dakkalu ko loolu moom leeru ma parce que it nag su fekkoon ne loolu leer na ma kon mooy wane ne maa ngi ànd ak moom ci politique wala dara waaye wax dëgg na bokk ma ci kaam ñoo bokk nag lu ñu liggéey ñoo bokk ñu liggéeyal waaye nag doonul koo xam ne leader la boo xam ne man damaa nekk ci suufam di ko liggéeyal wala dara loolu amut defal naa ko soutien nag ci ay xat-xat yu comme ni ma ko sañee defal ñëpp. Ah, loolu léegi nag bu dakkalee activité am ci wàllu politique loolu yëgaguma ko te fii laa ko déggee léegi nii waaw su fekkee nag am na leader bu ma sañ a soutenir loolu moom boo ma ko laajee dinaa la ko wax dinaa la wax ne la am na ko may àndal koo xam ne gëm naa ne euh, mooy njariñul parti bi fii ci dëkk bi. si biir loolu seetlu nañ ne tam gox bi dafa am problème mu leadership gis nañ ne daal mm, mën na maa wax ne sax lu fi parti bi ñàkk rek looloo ko xañ ndax ñi fi nekk juboo ñu fi bari jubóowuñu seen biir gis nañ si ay clan yu bari. loolu yow lan moo si sa xalaat ak lan nga ñu si mën a génneel comme solution ba nga xam ne day am ku nekk sa bopp bi am ñu topp si ginnaawam. loolu nga la wax léegi mooy affaire leadership boobu nga wax euh, ñun dañu amul particularité wala amuñ culture di jéem a buux nit wala ñuy jiital nit. lislaam dafa ñoo sant ba bu ñu àndoon di tukki sax ba mat ñett nit nañ wër njiit rawat na nag ñoo xam ne dañuy def politique di xëccoo loo xam ne ñu ko soxla dafa bëri département bi compliqué bi mu compliqué ci coow li lépp ci ñàkk koo mën a gañ ak yi ciy xew yëpp ñàkk leadership moo ko waraloon maa ngi sant yàlla nag bu baax parce que defoon naa fi sorte ci ginnaaw wax ne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma mooy ki nga xam ne tey mooy coordinateur général kum neex ak kum naqari bi ma ko waxee am na ñu ma woo téléphone attaqué ma dal sama kaw wax tey gëm nañ gëm naa ne am naa dëgg ci seen kaw. tey ku yëpp ku nekk ci popula kuy ku nekk ci région de Diourbel bi wala nga nekk département Mbacké war nga xam nga ne Cheikh Abdou moo fi nekk parce que tey li mi ngi liggéeyal président liggéey boo xam ne ñëpp ci teg seen bët euh, preuve bi rek mooy euh, dernière visite président bi am barki dem rek ci Kayar ki gis euh, mobilisation ba mu fa def jël alal ju jeex def ko ci te loolu mu koy defee damaa jëlal def ay rensemblement rassemblement wala ay mobilisation waaye defar gi muy defar ci biir parti bi ci biir dëkk bi rassembler nit ñi di leen woo di leen dajale këram di waxtaan ak ñoom ku ci nekk mu lay jox sa àq di la wax ne lii la parti bi fii lañ fii lañ jëm loolu lu am importance la loolu lañ manqué woon am na engouement boo xam ne ak ak ak ak environnement boo xam ne tey jii parti bi mi ngi koy dund grâce Cheikh Abdou Bara loolu nag euh, ñu ngi ci sant yàlla bu baax di sant président président Macky Sall ndax tey def na ko ministre conseil conseil spécial euh, ba pare it mu am détermination am xam-xam bi am capacité ba pare am personnalité bi ba pare it nag euh, yu bëri gaar ko yu mett gaar ko coow lu nekk mu dégg ko mais mu jàpp kon loolu lañu soxla ci njit kooku mooy ki mën a jël parti bi tey jële ko fii mu nekk yóbbu ko fu sori tey mboolem leader politique yi fi nekk tey ku ci rëy rëylu ba demoo këram it sa njaboot ña ngay sooy këram tey muy jël alalam di leen dimbale ci loo xam ne kenn dawu ko def parce que ñi fi nekkoon ñëpp jàpp nañ ne parti bi boo ci defee alal perte la moom nag xoolul li ko parti bi defal moom day xool di mu defal parti bi loolu nag mooy ngor booy dénk mbir danga koy dénk ku am ngor ku am jom ku am fullaak fayda ku am personnalité bi te am xam-xam bi moo waral tey affaire leadership boobu moom mi ngi suñ ginnaaw kooku moo fi nekk forche maanaam kum neex moom mooy sa leader kum neexul moom mooy sa leader parce que ñi ñi nekk fii naan ay parti naan ay APR authentique nangam nangam dañuy sonal nit ñi parti bi li mu soxla mooy liggéey ki fi ñëw tey ki fi ñëw suba ki fi ñëw barki dem ñoo am képp liggéey na fi loo xam ne ñi fi nekkoon def fi cent ans suñ ko fee def rassemblement bi ak engouement bi nga xam ne parti bi mi ngi koy dund ñëpp dañ cee war teg seen loxo mu dem loolu moom yaakaar naa ne eh, dañ naan wax wax ji franku laayu na moo fi nekk xale yi nee nañ ko yaa fi nekk mag ngi nee nañ ko yaa fi nekk góor ñi nee nañ ko yaa nekk jigéen ñi yaa nee nañ ko yaa nekk te moom la président Macky Sall wóolu foofu nag ñu ngi lancé président Macky Sall mu gën ñu koo tegal loxo parce que soxla nañ ko fi soxla nañ ko mel ne moom koo xam ne valeur yi nga xam ne mooy yi président soxla woon ci doomu aadama tam nekk ci moom moom président de la République valeur yooyu gis nañ ko ci Serigne Cheikh waaw kon kooku daal moom lañ eh, jàpp ne mooy ki tax liggéey bi mën a dem fañ fañ bëgg mu àgg incha allah. waaw tudd nga sëñ Cheikh Abdou si liggéey bu am solo bu muy liggéey si dëkk bi waaye dañoo seetlu ne moom it day bari critique yu jógee si askan wi di ñëw si moom. Mm. loolu lam nan nga ko mën a analyser yow ba xam moom moo moo wàccut di mu war a wàcce si terrain bi wala. Mm. donte am na loo si jot a jujj waaye bëgg nañ nag nga gën ñoo leeral waral critique yu bari ñu koy dégg wala ay nooni politique am la ñoo ko waral. bëgg nañ daal nga gën ñu gën ko analyser ba mu gën a leer. Eh, amul ku ma ku mën a jiite ci àdduna te doo am kenn du la critiqué euh, tàmbalee ko ci ngeen gi mu def yéen bi wala suñ borom sax gën a euh, ba ñëw tey ku ne président de la République toujours yaa ngi dégg critique yi nag mën naa jóge ci ñi nga àndal parce que Olof Njaay day wax ne ku bo ku boot bukki xaj baw la ñi nga àndal sax mën nañ lay critiquer waxuma la ak nag ki nga xam ne àndul ak yow. waaye ku am say bët daal xëppil te xool critique nag ñaar rek mën na koo waral ki gisul boppam ci li ngay def wala ki nga xam ngay def egseegul ci moom ñaar yooyu mën naa waral critique waaye ñun ñi nga xam ne am nañ lu ñu am nañu expérience am lu ñu xam xam nañ ne mooy euh, li ñu wax li ñu wax numéro bu baax bi mooy Cheikh bu Bale am nañ gëm nañ ne bu fekkee ñëpp jàpp nañ ko jàppale ko te buus ko incha allah rabbi parti bi li mu bëgg dina ko fi am loolu nag on verra mi ngi ci kanam. man waxoon naa ko fi sax ci jamono ci ginnaaw léegi li mën a régler situation département bi wala euh, dëkk bi di Touba. du ay ndombay tànk malgré ndombay tànk soxla nañ ko trop parce que dina tax euh, yu bëree bëri mën a jàppandi parce que Cheikh Abdou euh, bi mu nekkagul ministre conseil sax gis nañ activités yi mu mënee woon rawat na tey bi ñu ko defee ministre conseil tey bëri na ay dossiers yoo xam ne ñi ngi askan wi ñu ngi koy soxla mu nekk ci ay kilifa loo xam ne privé la yoo xam ne mi ngi ciy taxaw bu baax man am naa ci lu ci xam bu baax ba ndombay tànk nag soxla nañ ko trop ci région bi. parce que consideration dafa baax loolu moom ñu ngi ciy interpellé président Macky Sall bu baax lu mu ci gënoon a yokk rek parce que ñu am compétence bi am nañ fi ñu am xam-xam bi am nañ fi ñi nga xam ne mën nañoo doxal am nañ fi kon bu ñu sañoon dombay tànk lu mu gën a bëri euh, mooy gën loolu nag euh, amuñ ci ñaaw njort ci ne dana am parce que président mooy ki nga xam ne moom la yàlla samp chaque mercredi mu mën a samp chaque mercredi mu mën a sampi loolu nag damay jàpp na rek euh, wàññi bu nekk ci benn lay tàmbale ndax tey jii euh, ministre ministre Dame Diop nga xam ne moo yor lu jëm ci wàllu emploi wàllu liggéey moo ko yor te it doomu dëkk bi la doomu gox bi la te jàmbaar la liggéey kat la toujours mi maa ngi koy gis ci dëkk bi muy dem ak ñëw di politicien euh, kooku ministre la te waa jëpp gis nañ gis nañ seen bopp ci moom bu àndeek président sëñ Cheikh Abdou day gën a baax waaye nag bu gën a yokk it mu gën a baax parce que ay directeur général am nañ fi fi ne am na ñoo xam ne euh, dëkkuñ biir baax waaye fi lañ cosaanoo te ay ministère de plan waaye nag bu fekkee ñëwaat nañ ci biir dëkk bi nag jëloon ñu fi ñeneen nag ci wàllu administration bi kooku moom day gën a day gën a baax incha allah. seetlu nañ ay kilifa yu mag si APR euh, ku mel ne Moussa Diakhaté mën nañ see tudd Moussa Cissé Lo ñu gis leen ñuy mel luy yëngu. lu loolu lu ko waral parti bi moo bari ay jafe-jafe wala luy sababu loolu te ñooñu xam ñëpp xam nañ ne ay kàngam nañ ci biir parti bi nag. Moustapha Diakhaté ñaari Moustapha yow la Moustapha Cissé Lo euh, man gëw ne Moustapha Cissé dina wax loo xam ne luy déranger parti bi la parce que koo xam ne alal mag euh, activité am yëpp ci parti bi la ko def kooku du wax luy déranger président mag Sall lu ko yàq la politique nag léeg-léeg. dafa am ay euh, li wax euh, situation yoo xam ne bu egsee sa yaram day tàng sa deret day tàng faaw nga am noo waxee waaye na nañ jàngat la muy wax ak na mu ko waxee ak ci ban circonstance la ko wax parce que su ma ko gis mu wax loo xam ne luy blessé président Macky Sall dëgg nag moo dul neex léeg-léeg mën naa waxee noo xam ne ku ko dégg dangay jàpp ne euh, day wax ngir ngir lu ñaaw wala dara te fekk dëgg lay waxe dañu wax ne sa kilifa bu ko wax dëgg waaye na ko wax ak dëgg loolu day am bu dee ku mel ne Moustapha Diakhaté amu lu may wax parce que xaw ma ko dinaa koy gis nag ci télévision yi dégg naa sax mu wax ci ay sortam yu bari di wax ne liggéeyal na président Macky Sall ci dëkk bi loolu man leeruma parce que man fii ku fi kuy dugg ci dëkk bi dafi liggéey rek xam naa la te moom toujours mu ngi def ay sort te li mu wax lépp day ñaaw loolu nag man mënu ma koo jàppee partisan bu baax parce que damaa gëm ne man sa parti sa partisan da koo war di défendre di ko orienter waaye foo toll lu ñaaw rek wala lu baaxul rek ngay wax man ko ci partisan daal laa mën a wax ci ñaari wax kon sëñ bi day ñëw si actualité bi rek mooy coowul troisième mandat bi ndax gis nañ ne lëmbee na lëmbee na réew mi te comme kàngam nga si parti bi xam naa di nga si am xalaat bu am solo. Mm-hmm. lan moo si xalaat si troisième mandat bi ak lan moo si war a nekk taxawaayu parti bi. bëgg naa ko bëgguma ko wala man xalaat laa ci am waaw ma xamee question bi rek dinaa ci mën a tontu directement. li bëgg a xam mooy troisième mandat bi ndax bëgg nga président Macky Sall laaj ko. wala danga bëgg maanaam bu jeexalee mandaam bii mu bàyyi jox keneen si parti bi wala danga bëgg moom mu continuer de ma part personnelle man maay wax am naa atakalam li ma gëm mooy président mag Sall liggéey bi mu fi mu jële Sénégal ak fi mu ko anti ak fii mu toll man dama gëm ne ñaari mandat doyut damaa gëm daa war a amaat troisième mandat te it bokk naa ci ñi nga xam ne it nag. su ko doon laaj ci ñi koy ñi ko ñi ànd ak moom di ko wëtle lu mu ko jaral jaral ma ko ci laay bokk man parce loolu laa gëm euh, man du politique moo may dundal moo salaire bu may jox wala lu may wëti ci kenn wala lu mu président defal président yaakaar naa ne boo ko waxoon ndax ma sama jox ma mu ne musu xaw ma ko sax mën na koo wax donte xamante nañ xam bu baax a baax waaye man damay damay am ay réyalité yu tax may may défendre mbir fii réew mi toll stabilité bi fi mu toll ak fi fi mu fekkoon réew mi ak fi mu toll ni kooku ñaari mandat doyut ci moom te commencé na ay sànc yoo xam ne yii béyantoo dina àgg yi ci des ñu ngi ko war a commencé man dama bokk ci ñi gëm ne président daa war a am troisième mandat ndax ci sama xalaatu bopp. est-ce que gisoo ne loolu mën naa indi jafe-jafe yu rëy si réew mi digganteem ak askan wi. gis nga mu ngi ci liggéey boo xam ne man gëm naa ne askan bu président bëggoon a bàyyi ñoo ko déedéet. président moom du def violence mu soo koo gis lan lu loo xam ne mas naa force di bëtt baaraas la dara ci dara depuis bi mu fi nekkee ba léegi euh, écoute écoute bi mu am askan wi la ko jox noppam toujours ci askan wi la koy jox. booy siifu débat yi am ci télévision yi sax wala ci rajo yi sax débat bu xóot bu ci déggee deux jours nga gis mu réagir ci wax ci kon kooku mi ngi déglu askan wi waaye man man maag askan wi li ma gëm man xaw ma lu président di def ak lu mu gëm ëllëg xaw ma ko. waaye man gëm naa ne tey bu demoon ba taxaw ne damaa soxla troisième mandat askan wi ñoo koy jox parce que yërëm na askanam bu baax a baax ñu ngi leen di dimbale te li taxoon ñu teg ko fu muy liggéey gis nañ lu am solo li muy def infrastructure yi mu fi def gis nañ ko gis nañ li mu def ci wàllu monde rural bi PDC bi gis nañ boo duggee ci àll bi fekkoon na fi presque ay ay ay cinq cent et ci wàllu ay forage yóbbu na ko ba mille da ngay dem ci dëkk yoo xam ne mosu ñoo xam luy ab tali wala lu ñu xam ndox. waaye gis nga yóbbu na fa ndox yóbbu na fa ay tali lim fi def ci ci ci ci ci wàllu uh, santé def ko ci ci nu mu tuddati eh, couverture maladie universelle loolu wax dëgg fi yàlla yàlloo na nag uh, bu soxlawaatee askan wi xool ko ñu jox ko man nag damaa part personnel bokk naa ci ñi gëm ne bu ko soxlawaatee dañ ko xoo war a jox. gëwuma nag lu loo xam ne luy andi yëngu-yëngu la wala dara ci réew mi parce que président nekkut ci logique boobu moom. si biir loolu gisoo ne. Euh, communication bi war a am diggante état ak li président liggéey ak askan wi amul lu manqué ndax fu mel ne nit ñi moom ñàkk gi la ñuy faral wax ak yu mel noonu ak néew doole gi waaye comme bilan bii nga wax est-ce que àgg na si askan wi ni mu si war a àgg dëgg-dëgg nag si niñ ko war a xamee ak lim leen war a jëriñ. maanaam boo demoon tey ba euh, Matam wala nga dem ba Tamba walla nga dem ba Kédougou wala nga dem ba ci euh, Sénégal oriental da gis ne ñoom ñi nga xam ne ñi ngi dund. li président def ñoom yëg nañ ko seen bopp am na ñuy ñaxtu nag parce que am réew it nag noonu lay doxee ñii dañuy wax lu baax ñii wax safaan bi waaye am na ñuy dund loo ñoo xam ne tey niñ gisee seen bopp ci président Macky Sall foogoon nañ ne ba adduna ko am parce que man mas naa ci benn village boo xam ne ci côté Kajoor àllu Kajoor bii rek nga xam ne soriwut lool dama faa di waxtaan ak ñoom ci euh, bilan président Macky Sall dañ dañ na ma ñoom foogoon nañ ne ubbi bi nag bu bu amee réewu taax lañ dem. léegi waxuma la robinet waaye courant sax am nañ ko ak télé communication bi wax dëgg fi yàlla des na ñu wax la yàlla rek parce que nag ñi ko jagee di ko liggéeyal dañ ko dimbaloo ci côté boobu noonu parce que mi ngi liggéey guddeeg bëccëg suba ngoon waaye communication bi war pour ñu wan ko ñu wan ko askan wi amut barki démb rek élevage gis nga lim ci secteur élevage gis nga lim ci def fekkoon na ne la li nga xam ne mooy li jëm ci wàllu wàllu dundu jur gi deux milliards et quelque la woon mooy yokkaat ci yeneen 4 milliards ci ci wàllu élevage ba pare moom wax ne moom ci boppam sax dana ñëw insister nekk ab éleveur def leen jox leen ay primes yu di encouragé maanaam ni muy encouragé monde rural bi di ko encouragé ñi nga xam ñoo yëngu ci wàllu élevage dafa am solo ci am réew parce que réew pauvre pauvreté loolu moo ko fa mën a jële mooy ku ci nekk dem ñaq dem liggéey la nga tollool nga nekk ci bu fekkee ko war a jàngalee alxuraan mu dem jàngale ci ko bu dee koo xam dafa war a dem bay mu bay ku ci nekk ba nga nekk nga nekk di ko doxal loolu mooy tax réew mi dox te moytu ñi nga xam ne dañu nekk ci télévision nga xam ne ñoom mën naa laa wax ne douze mois yëpp vingt quatre heures sur vingt quatre wax képp la ñu liggéey buñ noppee ñoom duñ duñ selalu am na nag ay personalité yoo xam ne doo leen dégg ñu wax parce que li tax duñu wax askan wu ndaw yi nekk seen ñoo ñu lañ gis ne ñoom la taxoon ñu fal président président ma ngay góorgóorlu ci côté boobu noonu. ñu lay sant bu baax kon ñu mel ne dañuy delluwaat suñu maamun kàddu gi mu yëkkati kàddu mu mujjoom si jataay bi ñu yëkkati jataay bi. di la sant suñu Jamil di sant suñu Assane nga xam ne euh, borom liggéey bu rafet la bu set muy yëngu ci mu yor wàllu caméraman bi di sant sama xarit bi nga xam ne tey fi lañ doon defee émission bi si Abdoul Fatah Mbacké euh, di sant bu baax ci euh, di sant Sëriñ Tuubaa bu baax a baax ci xéewal gi nga xam ne defal nañu ko. mooy dimbali ñu bañ doon ay jullit euh, def ñu ñu nekk ay murid saadix loolu ñu ngi ci sant Cheikhul Khadim ci yar bu tedd ba nga xam ne yàlla dimbali ñu ko def nañ def ñu ko ba amul dara lu yëngu ci àdduna loo xam ne mën nañoo yëngal loolu ñu ci sant bu baax di sant organe bi nga xam ne mooy Ndindy Actu di sant kilifa gi nga xam ne mooy borom muy soxna Ndeye mbakke di bintu Cheikh Abdou Fatah jigéen ju man góor yoo xam ne ku nangoo liggéey la koo xam ne guddeeg bëccëg suba ngoon activité am yëpp yëngu ci liggéey maamam bi rek la ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm di santaat ak di njukkalaat président de la république ndax président ma munu munuma koo ñàkk di sant fu ma toll parce que man maa opté bokk ci partem def ko muy sama kilifa maa ko choisir kenn tànn lu ma ko maa ngi koy ñaanal nag yàlla defal ko jàmm àgg la ay mébétam di santaat it Cheikh Abdou mi nga xam ne mooy moo fi nekk loolu moom ku ma ci mere yaa xam fii ci dëkk bi di Touba moom mooy coordinateur général. maanaam waxkat yi ñëpp noppi nañ. waaw loolu nag ñu ngi ko ciy sant di ko njukkal di ko ñaan yàlla gën koo dooleel ba yaakaar gi nga xam ne président am na ko ci moom parti bi am ko ci moom mu matale ko maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax si teewle gi. ñu àndoon ak ñun si seen seen bii di Ndindy Actu seen émission bii di xew jamono te ñu amoon suñu kilifa gu baax. borom liggéey bu rafet nga xam ne taxawaayam ñëpp xam nañ ko fii si dëkk bi ak si réew mi muy sëñ Mouhamadou Mamoune Niang si ñu koy sant bu baax si euh, jàppandal gi ñuy sant sëñ Assane Diop mi ñu àndaloon si caméra caméra bi ak mbokk yi doon teewlu jotaay bi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. li xew ci ji jamono bon mat na fukki yëf ak yanant yàlla nanu mooy diglul ma nettali ko rëy